pour korite ren gii ay boolu KBS bee ay dugg ci kër gi. dal leen a jàmm daa am ñoo xamante ne ñoo may jàppale. ñoo may dooleel. Uh-huh. ñoom laa àndal ci koor gi yëpp tey nag ci korite bi. ñoo waa KBS mooy benn bi. ginaar yeeg. Uh-huh. pigeon yeeg. yii mooy chefin dish yi. du sedd monsieur año baa ngi nii. pomme sautée yaa ngi nii monsieur año bi nag. barbecue bi laa ko toggee noppale. Uh-huh. te neex service malamine baa ngi nii. moom laa def entrée. fii nag moom mooy sama 15 pièces zam-zam. ànd ak li nga xamante ne mooy fontenam kubu KBSB yaa ngi nii mën nga cee def sa glace mën nga cee def sa salade de fruits baa ngi nii sëñ bi maa ngi ko def ci sama 35 pièces ramadan yi mu ànd ak glace képp ku bëgg nekk partenaire u KBSB da ngay woote 76 644 16 41 76 644 16 41 yaa xam grossiste yaa xam détail yaa xam boutique yaa xam jënd jaay waat ak KBSB